ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na. ñu fekk ci mbër bu nga xamante ni. dafa ñëw dooleel Franc waaye tamit moom mu doon ko xamante ni ci G5 bi dafa am combat bu nga xamante daf ko war a bëre combat bu metti la nar a doon parce que Mama Lamine moo ma wax mu ni ma combat bi garga doo du ma ko may dara garga bi ñu la nuyoo char la ñu fekk la tey nga toog ak Franc ak ki nga xamante ni moo di Gora Sock ci li nga xamante ni mooy don bi nga xamante ni moom la Franc di def waaw ange billahi mina shaytan rajim bismillahi rahmani bi ñu sante yàlla julli ci ngi baalu ñëpp ci weeru ak koor bi nga xam ne ci lan nekk àq baal àq di wax ñu baal bu baax a baax di sama doom ndey nga xam ne ñoom laa fekk la fii fekk si fii ku ci mel ni sama doomu ndey Franc Gora Sock samay nawle mbër lan suñuy xarit lan foo ñu fekk ñun ñooy ànd yaadu na nag bu Franc wootee ñu bàyyi suñu te yëpp ñu ñëw xam nga tey kenn du ma fekk naa ma Garga de lu muy def fii déedéet looloo tax nag ñu ñëw teew fii waaw di nuyu waa Equivox nag bu baax a baax ñu gis ni 100 pour cent parcelle bi ñuy wax tey bi ñu ñëwee fii gis nañ ni loolu dëgg la ci yéen lan moo waral sincérité bi nga xamante ni yéen yéen a nga koy dund yéen waa parcelle waaw xam nga ñun ñëpp ay doomu ndey lan ay xarit lan dañuy demalante dañuy dikkalante comprendre nga ñun ñooy fréquenté maanaam du loo xam ni dañ koy tricher wala dara lu naturel la ñu koy dund li ñuy ñaan rek mooy combat yi nga xam ne ci leen jëm suñu borom defal ñu ci ndam ñun ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ma seeti Mama mu ni ma euh, ki nga xamante ni moo di garga combat bi signature rek la ci am ba mënaat jëram signé la la la pare ci combat bi maanaam dina yëg loo xamante ni mbis mbër mësula koo teg ci arène waaw yàlla baax na xam nga dañoo ne ci làmb fi mu toll nii ci combat bi fi mu toll nii wax ci jërëtul muy bëri ndax bientôt même pas deux mois ñu bëre mu ci eggee incha allah rabi dinañ xam kan mooy kan waaw. mais maama euh, kii Garga maama la mi doon xale. macha allah yàlla sunu borom dénk ko doole yow tamit yàlla sunu borom dénk leen doole ngeen war a ne kirtim daje fële nga xamante ni moo di arène national naka lañ la waa parcelle yebe est-ce que physiquement moralement mentalement Garga pare na. waaw pare nan parce que buñ parewul woon du nangoo bëre ci même pas 40 jours comprendre nga pare moo tax ñu nangoo bëre ci même pas 40 jours waaw mais ce que bés bi diisul ci yéen Franc war a bëre yow nga war a bëre ci même jour ak loolu naka la ko waa parcelle ma la jàngate loolu ñun mis nañ ko yàgg nañ bokk di bëre ak suñuy grand maak Franc nag yàlla dogal na mosuñoo bokk bés comme ni na ko doon waxee rek mooy 2-0 lay def quoi incha allah waaw bis mooy sama combat waaw dèjà. kon 2-0 lay nekk. incha allahu rabbi. yaakaar nga ni 2-0 ko koy def. soobe soobee yàlla dañuy daan. damay daan ñëw jaar ci yàlla franc franc dem daan Tyson 2 loolu la ñaan yàlla. daal di ñëw Parcelles Assainies ah, mais ki nga xamante ni moo di xarañ dégg naa sànq la fi jóge Modou Lo waaw ah, moom tamit muy jëgmal combat bu nga xamante ni combat bu am solo la contre Ama Baldé ah, wax ji bari na côté Pikine trop yéen waa Parcelles naka ngeen di waajalee. waaw xam nga combat boo te ne ñëwagul moom ku ne lu la waaye neex wax waaye li ñuy mën a wax daal mooy ñu ngi ñaanal Modou mhm. bis bu ko yàlla yóbboo ci combat bi mhm. yàlla defal ko ci ndab mu sedd bi ba amul benn werante mhm. waaw incha allah jërëjëf Garga merci beaucoup papa lan moo waraloon teewaay bi fii tey waaw asalaamaaleykum mbokk internet ñu ngi nuyu ñëpp à travers Equivox di jaajëfal ñëpp di baalu ñëpp ci weer bi di baalu àq ñëpp aussi quoi bon suñu daje fii daal dafa ne loo xamante ni Franc moo woote ndogu mooy li naan Sénégal pays laïque la ah dialogue islamo-chrétien moo waral li dëkk bi moom ñu ñëpp ko bokk daal franc bokkuñu ñu diine mais bu amee initiative bi def ko ñu rafet rafetlu lay nekk ndax ñu ñëpp benn lañu wax dëgg yàlla moo tax bi mu wootee ndogu ñu ñëpp dañuy bàyyi suñu yëpp ñëw soutenir ko accompagner ko quoi. Euh, mu am combat mu am combat le 9 euh, digganteem ak Tyson 2 moo euh, Garga tamit am combat ba Mama Lamine naka ngeen di waaj bés yooyu nga xamante ni tey doomu parcelles yi ak 100 pour cent parcelles naka lañ koy waaj. fi nga xamante ni boo tege tànk yàlla maye ndam rek ñu ngi ci daal ñaan yàlla suñu combat yëpp yàlla defal ñu ci ndam combat yëpp nag bàyyiwun benn xale parcelles yëpp seen combat yàlla damay leen ci ndam incha allahu rabbi ko mu yàgg lool la est-ce que tey jii buñ ñu woon suba la combat papa Sow pare na pour affronter ki nga xamante ni moo di gone ak euh, Siteu waaw ñun ay mbër lañu chaque jour ñu ngi entraîné saa ñu promoteur bi ne xoob rek ñun pare nañu quoi wax dëgg yàlla waaw waaw ñun ñu ci war nekk quoi waaw ah, Siteu ma seeti ko mu ni ma combat bi moom dina métti ci yow ndax dafa jug am ci loo xam ne daf ko daf ci jugee te waa dañ ko yónni yaakamte ko waa jàmm gën <laughs> waaw waaw man amul ma ci wax quoi ndax bon fam la ñu boole mi contrat pour promoteur addoo ba ñu war cee nekk rek danañ ci nekk incha allahu rabbi waaw est-ce que Papa Sow pare na physiquement ñi ngi ci li ñu war nekk moom laa wax sànq léegi ñi ngi ci li ñu war ne waaw ñun nag ñoo nekk ci ay loxo nekk suñu ay coach suñu ay encadrement lu ñuy def ak la ñuy def waaw waaw lan mooy nekk kàddu gu mujj ki nga xamante ni moo di Papa Sow. waaw di jaajëfal ñëpp rek di nuyu woon làmb yëpp leen wax ñu gën a jàppoo nekk benn rek ndax mbooloo mooy doole sama mooy dara fee sax ju loolu la leen jéem a gën a nekk benn rek xëccandoo bàyyandoo jàppandoo dóorandoo xam nga mooy loolu quoi di ñaan ñëpp jàmma ah. Ibou Laye borom proto Ibou tey ñu gis la fii ci diwaanu parcelle Franc di organiser ay ndogu nga teew fi lan moo waroon taxawaay bi waaw Franc rek Franc moo woote xam nga woote ndogu vraiment ñu koy rafetlu bu baax waaw kontaan nañ ci loolu quoi vraiment initiative bu rafet la def nii vraiment surtout si dialogue islamo-chrétien Franc ñëw woote si mois de ramadan musulman Franc ñëw def lii vraiment rafet lañ ko trop kontaan nañ ci trop di ko ñaan yàlla bu nekk continuité ba chaque année muy am moyen ak doole bu ko defee si barke yonent bi euh, ngeen di jëm ci combat yoo xamante ni am solo la Franc war a bëre Garga 2 war a bëre Modou war a bëre euh, euh, Papa Sow war a bëre ñoom ñëpp tey est-ce que naka ngeen di préparé préparé combat yu nga xamante ni doomu parcelles yi am nañ ko bon ñu ko doon préparé au calme rek ak koor gi nii xam nga koor gi moom gars yi dañuy wàññi séance yeeg yooyu mais bu bu ñu yàlla defalee jàmm ba koor gi jeex si jàmm incha allah moom dañuy tegu si yoon bi mu soobee yàlla moom waaw vraiment liggéey bi day daal commencé tàmbali 100 pour cent waaw bien que ñu ngi si woon sax mais bu koor gi jeex incha allah moom day tàmbali 100 pour cent moom incha allah waaw bu soobee yàlla lan ngay wax doomi parcelle ak waa Sénégal lan ngay tëjee waaw di wax waa parcelle xam nga rek ñu jàppale seen mbëri rek vraiment 100 pour cent bi ñu ngi si def jéego yu ñu mën pour mu gën a am doole di woo bien volonté bonne volonté parcelle yëpp ñu jàpp si waa mbër bu si am combat ñu taxawu la jàppale la waaw ba parcelle siggi ci kaw ko incha allah suñ titre roi des arènes ñu ngi ko conservé képp nekk si ginnaaw moo tamit yàlla de la may ndam ak tudd fan ak wér daal jërëjëf. Euh, kon Franc ñu seet si la nekk euh, tey ñu le ñu fekkoon la église tey ñu ñëw fekk la ci biir koñ bi euh, nga ànd ak mbër yi nga xamante ni ñoom la fekk ñuy góor a soog ak gargade ak ñi nga xamante ni moo di 100 pour cent parcelle Franc tey bi lan nga waaw xam nga dañuy sant yàlla baax a baax xam nga di nuyu ñëpp képp koo xam ne teew na fi aussi. xam nga lu mu dee dee am na ñoo xam ne teew nañ fi benn cinq minutes am na ñoo xam ne ñu ngi woote boobu ba léegi. xam nga loolu yëpp ñoo ak ñooñu ñëpp ñu ngi leen di béggee di leen sant bu baax a baax di leen gërëm. di leen wax ñëpp mënuñu teew nag. mais ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp quoi ñii nag. li nag famille la quoi chaque jour ñu la ñuy toogee bu bu même sans làmb sax chaque ñu la ñuy toogee ñoo bokk lu ñuy def chaque ñu ngi ci géej gi ñu ngi ci ñu ngi ci géej gi ñu ngi saali ñu ngi toog ñooy toog nii nii la ñuy toogee Kër Poisson di ko waxtaanee nii la ñuy toog chaque jour on est ensemble quoi. ñu gis ni sànq xarañ fi la fi la fi la jóge euh, te te teewaayam lan moo ko sababum. non Modou c'est normal ñun bu ñu xewlee Modou dooy ñëw moom tam bu xewlee ñu dañuy dem loolu force la. loolu kay bu wala ko gisee bu leen laajte Modou lan moo ko fi tee eh, eh, loolu moom du question moom. waaw <laughs> non non <laughs> nee na du question euh, mais tey ba tey ñu des ci li nga xamante ni moo di combat G5 bi maanaam le 9 nga war a bëre ki nga xamante ni moo di Tyson euh, nga am ci combat Garga am ci combat euh, tey naka ngeen di préparer bés bi ndax Tyson fekk naa ko ndaayaan ci biir géej gi ci gaal yi mu ni ma combat bi yow wax rek nga ci am bu at bu soufflé mooy say mbokk eh, taf nañ seen i bopp. Uh-huh. waaw comme wax rek laa ci am comme kay jaratul ñu ñu ci ne fi di débat wala yooyu noonu nañ bàyyi bés ba rek. Uh-huh. loolu moo gën a yomb quoi comme affaire yi lu ci desati bëreetul bëri na bëriwul quoi nañ bàyyi bañ bañ ne yàlla nañu fi yàlla may talak fekkee ba bësu ba rek loolu moo jar moo ëpp solo quoi. Mm-hmm. est-ce que est-ce que euh, Franc pare na physiquement mentalement moralement. ah mais ñun ay xale lañu ay xale lañu moom la ñuy laaj ba xam pare na ndax moom mag la ñun ay xale lañu waaw. waa parcelle dañ laa yónni yàkkamti la lan lan lan lan instant lan moo nekk ci bopp bi. waaw instant yi moom bu ma la waxee dëgg mbégte moo mbégte moo fi ne mbégte ak kontaan xam nga bu saay boo tourné gis grand yi xale yi saay boo tourné daal gis gars yi di la gën a motiver di la yokk jom di la ñaax mooy loolu daal comme boog fu mu toll nii duñ def dara lu sant bu baax a baax parce que am nañu buñ tourné dañuy gis ay nit suñu ginnaaw lan ngay tëjee Franc waaw xanaa di gërëm ñëpp encore une fois waa koñ beeg suñu maman yi xam nga ñu ngi jégalu tamit ci gars ci dérangement bi xam nga ñu ngi gërëm ñëpp di siyaar ñëpp di leen wax vraiment kontaan nañu xam nga aussi tamit di nuyu waa par profité ci occasion bi nuyu waale waa paroisse bi xam nga tey suba foofu lañ nekkoon doon yóbbu ay don xam nga waaw ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla nañ koy teewe ay at yu bëri bëri di nuyu aussi sama waa koñ waa unité sept waa koñu njaago parce que fii affaire bu garaaw la fii unité la man fi laay fréquenté mais dëkkuma fii comprendre nga mais bu ma ñëwee fii dafa mel ni man dëkk unité sept laa dëkk waaw mais lépp benn la waaw du nuyu ñëpp encore une fois parcelle un vingt six mhm. gis nañ nag aussi ñi nga xam ne ñoo ci jàpp ci soutien yi mhm. parce que xam nga yombul ak jamono ji nu mu mel mhm. nga fëgg nit xam nga nga ñëw mu accueillir la accueillir bu rafet jël alalam jox la mooy ñuy soreek ñi jegeek bu ñu limee dañuy juum ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment di nuyu aussi tamit grand yoo xam ne ñu ngi fii ci koñ bi grand Matar Lo ñu ngi koy nuyu baax a baax ak ñoom Bamba ñoom Alassane loo ñoom Agar gars yi daal bëri nañ fi su ma limee damay juum ak jeunes ñoom Mara Sëñ Saaliw xam nga du ñuy sama yenn grand yi yoo xam ne ñoo nekk ba bële di si jàpp ku ci mel ay Mor xam nga moor juuf ay Laurent xam nga di nuyu di leen nuyu ñoom ñëpp quoi waa parcelle 1 26 amuñu fay kenn ay ñoom zoo tamit aussi noonu lañ ci sonnee ñu ñëpp daal bu ñu waaw di bëggee ñëpp kon rendez-vous le 9 incha allah. allah desaan na rendez-vous ci diggante bi. rendez-vous ci diggante bi waaw. secret laa a xam def secret wu la ne secret euh, moom tamit mosul am adversaire bu mel ni man bu dee xeex maa ko daax bu dee bëre maa ko daax combat a bii ma jëm moo ma ci a neex boobu lay gëj a bëri maa ko daax bëri fuuf daax ko bëri ndànk sax danaa ko damm ba toog ci kaw bu fekkee dafa am fu ma lu ma bëgg a wane du maam Lamine moom moo may Vox Arena, la voix de l'arène, le G5. Un gala, cinq drapeaux, cinq grands combats ci benn takkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox